dem màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu laa ngi yéem ko ngir gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy nag moo ko daa def lim ci digle da ñu jaamu yàlla ci sunna sundi jël laa ngi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 nit ñëpp maase di bëgg bisam bisaa bu dikkee mooy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëriñ bi wax na la gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla moo ko defal di ñaanal Cheikh Sidy El Moukhtar sëriñ Cheikh Matilay yàlla yàggal ko fi te wéral ko ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sunu jëwriñ sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu mu soxna meen Ngaabu mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk li nga xam ne mooy Safinatul Amaan aju ci lépp lu aju ci war may dëkk bu sell bi ak kaaraange dëkk bu sell bi ci saayir ci baatin tey jii nag bii mooy juróom-ñetteel bi yoon boo xam ni dañu daje fii ngir lépp loo xam ni mas nañ ko jàpp at mu jot dañuy taxaw fii ci gaar bi sëriñ Modou Lo mii sunu jëwriñ di nu liggéeyloo ak sëñ Bay Sarr téyeer mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñu wan leen li nga xam ne moom lañ doon liggéey ñu fas yéene ko jot li toll na ci li nga xam ne moom lañ njëkk a jàpp fii muy mille trois cent soixante ballon football yoo xam jàpp nañ ko ci ay terrain football yoo xam dañ doon jàmmaarloo ak ñoom waaye bu ñu dawee bali dañ koy jël garde ko fii tool na ci fanweeri ndënd ak ñeent yoo xam dañ doon tëgg sabar fii ci Touba ñenn ñi ndongu seen i ndënd ak ñi nga xam ne dañ leen a yóbbu ci yoon yoon sanctionné leen toll na ci tam col gu bon gi lu toll ci 1599 bodi muy col yi nga xam ne méngowul ak dëkk bi dëkk bu sel bii ci ñi ci jàpp nangu ko ak ñi nga xam ne yóbbu na leen ci yoon ñu sanctionné leen toll na ci pantalon yi nga xam ne dañ koy sol fii ci dëkk bu sell bi mu toll ci 1221 junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn muy pantalon yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy sol ci dëkk bu sell bi dañ koy tere toll na ci tam terrain yi nga xam ne dañuy dal ci seen kaw dañuy daw léeg-léeg di fa bàyyi ay dàll dàll yooyu toll na ci ñeenti junni dàll ak juróom téeméer ak fanweer ak moo ngi nii ngeen gis fii tey loolu tam ma bamtuwaat ko muy terrain yi nga xam ne dañuy dal ci seen kaw dañuy daw bàyyi seen i dàll ñenn ñi jàpp leen yóbbu leen police ñu fayloo leen ñenn ñi ñu nangu la nga xam ne mooy dàll yi ñu yoroon toll na ci ñaar vingt sept vingt deux mille sept cent trente li nga xam ne ay lido la muy koor gi day faral sëñ bi bu koor gi ñëwee muy wax ni nañu bàyyi lépp lu aju ci ay carte ak yu deme noonu toll na ci juróom-ñaar fukk yoo xam ne nii jàpp nañ leen indi leen fii bokk na ci ñoo xam tam dañ leen a sanctionné yóbbu leen police ak gendarmerie bokk na ci tam ay dàll yi nga xam ne day yor ay pono Touba léegi dafa am xale yoo xam ne dañuy yor dàll yi yor pono di dawal guddi ay boor vers minuit deux heures ngir di këf ay pasati jàmbur wala ay saagi jàmbur ñooñu am na ci ñu jàpp nangu seeni i dàll ñenn ñu jébbal leen yoon loolu toll na ci euh, dàll yooyu toll na ci ñaar fukk ak ñeent muy dàll yi am pono yi bongo yi nga xam ne ay ngente day am fii ci dëkk bi ñuy tëgg di jële ay nit ndakaaru di tëgg fii def ay sabar ak ay bongo toll na ci ñaar fukki bongo ak ñaar muy 22 ñooñu tam jàpp nañ leen sanctionné leen nangu seen i am na kopp yoo xam ne itam dañ ko jële woon ci réew yi soriya indi ko fii ngir ñu ci naan café waaye kopp yi boo ko xoolee ñi ci doon naan kafe yëpp xamuñu woon li tax ñu doon ko naan ndax kopp yooyu sàngara lañ ci mandarga ñu doon ko naan fii ñu jàpp leen dajale ko toll topp na ci ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar kopp yoo xam ne dañ ko doon andi pour ñu ci naan kafe fii ci dëkk bi sell bi mais kopp yi dañ cee mandarga sàngara toll na ci tam ay gënn muy gënn pipe yi nga xam dañ koy tuxee ñi ñu doon jàpp képp kuñ ciy jébale woon dañ koy nangu denc ko pour mën koo wane comme année bu mel nii loolu toll na ci juróom téeméer ak euh, fukk ak juróom-ñett 618 briquettes yi nga xam ne dañ ko doon taale ñoom it briquettes yooyu toll na ci 364 briquettes euh, euh, muy muy briquettes yi nga xam dafa àndoon ak li ñuy li ñuy toxe ak almet yi almet yi ñu ko naan taale sax dañ koy bind ndax sëriñ bi dañuy wax ni toujours lépp lu ngeen jàpp muy benn cigarette muy benn briquette muy lu mën di doon na ngeen ko bind bind kañ ko jàppeel ngeen denc ko ba ba ba ba bañ laaj leen ko loolu almet yooyu toll na ci 80 almet pon muy laxasi muy muy pon poti pon yi nga xam ne dañ ciy def poon jàpp nañ ci lu toll trois cent vingt ñett téeméer ak ñeent ak ak ñaar fukk moom it mi ngi fi li nga xam ne mooy sàngara butéel yi muy ñi nga xam ne dañ leen di jàpp parfois ñeen ñi di daw ñenn ñi déngale comme di ko wàcc yooyu ñu ngi ci dajale ndax ku jàpp ci parfois dañ la yóbbu police ñu jël sàngara si ak butéel bi boole la yóbbu la defe yóbbu la njaareem ñooy toll na ci cinquante huit yoo xam ni dañ euh, yi cëpp ci gaar bi la ak feneen ak feneen fu noonu. cigarette li ñuy wax cigarette Marlboro ku ne xam na ni cigarette waxuma li ko sëñ bi tere mais li muy yàq ci doomu aadama toll na ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak benn muy 521 paqueti Marlboro li nga xam ne mooy cigarette bi ñuy wax excellence moom it jàpp nañ ci lu toll 190 euh, toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk li nga xam ne mooy kab yi jigéen ñi daan sol di wërelu ci dëkk bi ku ne xam ne dañ koy tere loolu tam jàpp nañ ci euh, jàpp nañ ci lu toll 191 téeméer. ak juróom-ñeent fukk ak benn laxasi pon yi ngeen seen nii benn laxas bu ci nekk nit lañ ko jàppeel loolu mi ngi toll ci juróom mille sept cent quatre juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ak juróom-ñett fukk yoo xam ni ku ci nekk nit la woon ku doon tux ñu jàpp ko buñ la jàppee tam risla ba nga yor dañ koy jàppale risla boobu toll na ci mille cinq cent quarante carte mariage yi nga xam ne dëkk bi dañ doon def léeg-léeg su guddi jotee ay 22h ñuy carte xaalis jàpp nañ ci lu toll euh, juróom-benn fukki paire ak juróom-benn toll ci 66. li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy am na yenn garab yoo xam ne mënu ma ko tudd ndax rajo bi mais dañ ko doon jaay ci jumaa ji te méngoowul ak jumaa ji moo nekk foofu jàpp nañ ci 92 paquet ci li nga xam ne mooy environ jumaay Touba. yamba ji jàpp nañ ci lu toll ci liñ ci jàpp bari na liñ ci jàpp bari na. ndax kuñ ci jàpp te nga yor yàmba dañ lay yóbbu jébbal la gendarmerie wala police ñu defeere la waaye da dugg ci mbooloo ñu daw bàyyi benn laxas wala ñaar ñu dajale ko loolu moo nekk ni tey waaye kuñ ci jàpp dañ lay yóbbu ci lu li ci des mooy jàpp nañ fi benn jigéen boo xam ne yàlla dogal na dafa doon jaay boppam yor carte am carte fii ci fii ci dëkk bi jàpp nañ ko ba jébbal nañ ko yoon ndax dafa yoroon carte ñu autorisé ko ko kart baa ngi nii loolu mooy li nga xam ne sëñ bi moo fi yemb tey Euh, li nga xam ne mooy yamba ji moo nekk nii carte boobu moo nekk nii loolu mooy li nga xam daje na fi ci tënk waaw ñoo ngi sant bu baax nag sëñ Amadou Mokhtar di la sant bu baax yow mi nga xam ne yaa ñuy jàppale ngir xiirtal na ci ñu liggéeyal Serigne Touba tam bañ a ak benn coona tam bañ ànd ak benn lépp yaa ñu ci jàppale ci gasoil ci oto ci sa xaalis ak ci say moyen sa téléphone kenn féetlu la ci kon ñu ngi la ci sant di la ko seedeel fii di ñaan yàlla yàggale fi te wéral la di sant sëñ Cheikh Jëm Fall mi ñu ci jàppale ak sëñ Abo Fallilu ak ñi ñuy joxub gaasuwaal ak mais yaay partenaire numéro un ñu ne ñoo ngi njëkk a jàkkaarloog yow di wax ni volontaire nañ jaayante ak sunu bakkan ci lii la sëñ Cheikh Sidil Muxtaar dénk ñu jaayante ak sunu bakkan ba mu dañ ñi ngi ci jàppale rek nga xam ne ñi ñu ci jàppale te suñu ci du tee ñu ñu nekk ci suñu ci jàppalewut te du tee ñu nekk ci mën nañ cee sant ñi nga xam ne ñooy presse bi mën cee sant ñi nga xam ne mooy justice kuñ fa yóbbu safin amaan yóbbu la danañ la àtte teg la li la war a teg di sant gendarmerie di sant police di sant waa sapeur pompier yi nga xam ne ñoom ñi ngi fi taxaw ba léegi ak waa service d'hygiène ak ñëpp di membre yi loolu mooy li nga xam ne moo teew nii tey képp koo xam ne dégg nga ko te teewoo fi sax sa xel du ko mën a nangu ndax kuñ ne lii ci biir dëkk bi la jógee eh, loolu war na laa yéem bu baax a baax ci nga xam ne sëriñ Touba lépp lam doon bañ tey la ko gën a bañ lii nag ñi nga xam ne ñoo jaayante di liggéeyal Serigne Touba di ay ndaw yoo xam ne mënoon na leen a fekk ci leneen ah loola tey jii ñu laxasaayu ànd kook seen jëwriñ ji sëriñ bay saar ak Mouhamadou Diop Diawbe ñoom ñëpp ñu taxaw liggéey ci liggéey bu sell bu rafete nii loolu tax na ñu xam ne lii mooy résultat lépp loo xam ne lii nit yaa ngi koy dégg wala nga war koo tontu soxlawul wax ju bari fexeel bay wane résultat mooy li am solo yéen képp ku dégg li wala nga teg ci bët xam ne yéen am résultat bu wér te loolu la sëriñ bi soxla. waaye jamono am na loo xam ne boo ca dee dox bu la nit dee ayu sax boo ko geesoo mi ngi lay tardeel dangay fexe ba di ko wan résultat te bañ a nekk di tontonte ndax li am solo mooy képp ku fiy def loo xam ne lii neexul sëriñ bi kooku moom diisu la ci muñal dara li ci war rek daañu ko def koo xam ne kii seddoo sëriñ bi orma ba ne da ngay eh, ñaag dëkkam bi danga koy wëlbatiku ko róor ko loola na nga xam ne fas nañu yéene jàmmaarloog yow ci biir ak ci bitti te it bu boobaa nag day mel ne yow Serigne Touba nga déclaré guerre ku déclaré sëriñ Touba ger nag doo far say dàll loolu nag bëgg na ñëpp bàyyi ko xel kon lii liggéey la bu yàgg am ci anam gu mel nii wala lu ko raw waaye gis nañ ne féeg ñi koy def bàyyiwuñ nu itam duñ bàyyi duñ ci tàyyi duñ ci yokkati nag ndax ki nekkul ci dëgg bu bëggee jàmmaarloo ki ne ci dëgg yàgg-yàgg mooy daw wan ko ginnaaw foofu nag lañ fas yéene taxaw képp koo xam ne kii daal yaa ngi def naka sudu noona wala mu ne ci sam loo làqu-làqu boo feeñagul it da nga mas a feeñ te boo feeñee nag yaakaar naa ne du doonum noflaay ci yow kon ñi ngi ci gërëm ki nga xam ne moo ñu jàppale ci ndigal loolu di ñu ci soññ muy xalif sénéral de Mouride Serigne Sidine Maxtaar ak mboolem njabootu Serigne Touba gi nun ñëpp it ñoom ñëpp ñoo leen fi représenté fii tey xat-xati màggal gi rek moo tax ak activités yi waaye kon ñoom ñëpp ñoo fiy teew ndax Safinatul Amaan ku ne xam na ne njabootu sëriñ Touba gi ñoom la ko Serigne Saliou tudde woon ñoom ñoo ko seq ci biir ak ci bitti di ci liggéey kon noonu dañ dénk rek ñu koy coordonné waaye ñoom ñëpp ñi ngi ci biir liggéey bi ñi fi taxaw ñëpp bokk ci liggéey bi itam kenn ku nekk ci njabootu ñooñu nga bàyyi ko ñëw bokk ci liggéey bi kon ñoom kenn ku ci ne am nga fi sa njaboot ñoo xam ne say taalibe lañu ñoo la représenté ci biir waar wi euh, di la fi buddi li ñax di la ko bayal te loolu mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal nag def ko moo ëppum noflaay ki nga xam ne daf koo bëgg a xajamal ndax ki koy def moom day am noflaay fii am ko ëllëg te lépp sëriñ bi da ko ciy dimbali waaye ki nga xam ne kii nag moo bëgg a yàq liggéeyub sëriñ bi kooku moom ci fitna rek lay dëkk fitna rek lay dëkk te du noppalu loolu yàlla nañu ci yàlla musal noonu ñëpp kon nag ñu xam ne lii aw sas la ab soññee la itam ndax lii kat euh, kenn nit defu ko ñaari nit defu ko mbooloo ko liggéey yu ànd ak seen i xel nite bàyyi seen i bëgg-bëgg jaayante ngir jëmmi sëriñ Touba moo tax sëriñ bi itam niital leen yoon wi ñu war a mën a jaar bañ mën a am lu toll nii tey man ko wane fu nekk loolu nag euh, sëriñ bee ni demee képp ku laxasaayu ngir liggéey ko moom moo lay ubbi li bunt euh, taxas yi ne ci sa kanamit moo la koy falangal waaye li may soññee sama bopp di leen ko gën a soññee mooy liggéey lañuy def bu kenn naw lii bu ko kenn xeeb waaye nañu xam ne lu ne lu baree ngi ci suñ kanam te war nañoo préparer pour jàmmaarloog ñooñu leneen lum ca mën a doon muy suñ alal yi ñuy ñàkk ba ci suñuy ruux ak lum mën a doon sëñ Tuubaa ko ëpp doole ci noonu kon nañ jaayante ngir loolu te xam ne e, sëriñ bi ku ci nekk moom moo lay gàttandul boppam ndax e, la ma sëriñ Saliou waxoon rek neewoon na ma kenn du liggéeyal sëriñ bi lor di la ca fekk lor nag lu la fekkul njariña la cay fekk kon nañ yaakaar njariñ loolu te doyloo ko te li ñu ci gisit nag li ñu gisagut eh, yaakaarloo nañu ko li ñu weesu tax na ñu yaakaar li agseegul ndax sëriñ bi moom ay mbiram nii rek lay mën a demee lum bañ ci dëkk bi loola dafiy jóg ba faaw ku ko fi bëgg a def nag yaa nar a yóbbe sa bopp fitna te danañ ci gën a yokk matuwaay yi ci lépp loo xam ne lii rek laaj na ko ñuy ñaan population yi nag kenn ku ne fa nga dëkk lépp loo gis te gëstu ko ba mu wér la na nga fexe ba jokkoo ñi nga xam ne ñooy waa safinatul amaan ñu ñëw def ci la ca war fas nañu yéene yokk engagement yokk moyens ah di gërëm itam suñ mbokk waa Italie yi ñoom sëñ naar nger nga xam ne ci rajo xasida boobu online foofu la nekk ci Italie di ay mbokki taali be laxasaayu nañ ba bëccëg di jàppale safinatul amaan ñi ngi ni teew ak seeni jumtukaay di jël mbir mi te it am na yu ñu waajal yoo xam ne day jàppale safinatul amaan ci liggéey bi ba seen jokkoo gën a yomb Ah, yu bëree bëri ña ngi koy yëgle foofu ak di ko fa leeral ba bokki taalibe yi di gën a xam safinatul amaan di ko gën a jox cër loolu lépp liggéeyu Serigne Touba la kon mu wane ne ña sori ak ña jege ñëpp mën nañoo àndandoo di liggéeyal sëñ bi te loolu rek mooy li am solo ndax sëñ bi moom buy fay ni muy fayee moom bu la fayee rek nga rus ndax kenn ku ne ameel nga ko njukkal li may daan faral di wax rek ku nekk boo xalaatee da nga xam ne sëñ bi féete na la fu ne waaye yow nag bi war nga koy wane te loolu mooy laaj bi nga xam ne ba léegi tontam dafa xaw a jafe kon kenn ku nekk war ngay xalaat rek yow fan nga war a féete sëñ bi ndax soxla na ku ko féete fi barab kon nag yéen ñi góor góorgóorlu ci lii bu leen xeeb seen jéego na ngeen gën a te saañ seen i nopp euh, gëmm seen i bët dëgmal lépp ci sëriñ bi bañ a geesu leneen képp ku ciy wax ak yéen ci lu leen di tàyyelloo sax bu leen ko geesu xam leen ne saytaane la su bëgg a gàllankoor liggéeyu sëñ Tuubaa te loolu du jëm fenn gis ngeen ci ñoo xam ne ñii ca njëlbeen lañ leen daan wax soree na léegi wëlbatiku di futtiku di sol seeni i dàll bëgg a topp ci yéen la ñuy def loolu nag wane ne am ngeen fu ngeen jëm kuy dox nag te àggagoo bul faale ku lay wax wala nga wala muy xëcc sa mbubb amal fu lay ku xëcc sa mbubb sax fekkul ta dem te xam ne dalaa bëgg a gàllankoor lenn néewu fi lu may liggéeyal Serigne Touba Serigne nee na li mu yor mënu cee jariñ kenn ku dul da nga koo jox sa bopp te ñaqal ko loo ko jege-jege ci mbokk boo ko ñaqalut amoo ci wàll boo wëllëreenteeg moom kóllëre ga ca layam boo ko ñaqalul amoo ca wàll boo dee dëkk ju yàgg amoo ca wàll da ngay futti ko ñaqal ko xamul yaay kan xamul foo jóge waaye bu boobaa yëgal ne am nga njëg te moom moo lay jaay loolu nag kenn ku ne war na koo xam fi jamono toll mësagoo ko gis koy jaay magasin nga ñëw ñu naan la njaago nga wala pula fuuta nga yow xaalis bi kooku yor client bi képp ngay xool sëñ Tuubaa foofu la nekk ku am njeg rek ci nga bokk bu kenn jàpp ne diwal diwala njëkk a jébbul wala ji diwala ko gën a jege ci deret ba tax na moo la ciy gën a jariñu te lëggéeyaloo ko loolu nax sa bopp la sëriñ bi ku ko lëggéeyalul doo ci am tus foofu la nekk ndax li mu yor ak njëg ciy jotale nit te da ko liggéey ba ñàq ko loolu la koy jaayante ku jaayante nag sa walla nga ca kon nañu góor góorlu dama naan bu dee mbokk la lu ci waaye di xëcc na góor góorlu ci lu baax lu mën a bokkeek sëriñ bi ndax nee woon na kuy xëcc ci manu mbokk day na ñëpp xam ne la nga baax le képp laa bokk ak yow waaye la nit ñi di xebet ci yow jotiwuma ci ak yow dara kon ku bëgg a bokk ak sëriñ bi ni na nga góorgóorlu ci mbaax goo mën a bokkeek moom ku bëgg doon taalib sëriñ Tuubaa fexe koo ñaqal te bul doonum naa féq ku ci doom naa doonum naa fekk nag turu taalibe laa képp ngay am waaye naa fekk ga képp moo lay wuyu suba moo lay wuyu ngoon doo am ca sëriñ bi dara loolu nag dara jëru ko kon nañu góorgóorlu di gën a sellal suñu pëseef te jaayante te yéen ñi seq liggéey bi it ngeen nekk benn bañ a bañ a doon ay noon du ngeen ay adversaire du ngeen ay politicien du lenn lu dul loo xam ne ñu jaayante war a liggéeyal sëriñ Touba ku ci gis sa moroom na jàpp ne moom nga war a gën a bëgg ci sa kanga bokkal ndey ak baay loolu mooy liggéeyal sëriñ Touba dama naan foo fi gis ñuy liggéeyal sëriñ Touba am lu ñuy jàppante ci seeni xol am na ku ca naafiq ne ci xolam kon loolu nañ ko moytu te bàyyi ko xel liggéeyal sëriñ Touba loo ci dugal rek yaa ngi am gàllankooru seytaane te yëgoo ko kon nag nañ ko moytu bu baax ndax sëñ bi gën ñoo mën a nangul ndax sëriñ Saliou neewoon na kat kuy liggéeyal sëñ bi fexeel ba jiital ci Pastef nee na la cay coonaak fitna lépp sëñ bi da lay jiitu ca kanam la cay coonaak fitna lépp da koy fëkk gàlloo ko bàyyi la ndam la ak sag ba boo def dofa nag defe ne yaa def lépp fekk defoo dara sëñ bee lay jiitu ca kanam sa Pastef a ko waral kon nañ yokk Pastef yi te sellal te kenn bañ a gis sa bopp ndax defuñu fi lenn loo xam ne lii du sëñ Tuubaa ca jiitu moo tax loolu am te ku ji sa bopp ñu baraak sa bopp liggéeyal sëñ bi kenn du ko def di ci gis sa bopp wala ngay bajantu ñi ngeen di seqalit la tax buñ ne safinatul amaan ñëpp taxaw respecté leen jëmmi sëñ jee tax kon bu kenn defee ne ki ngay taseel dafa dof wala dafa ñàkk da waaye kuñ ci xas xam ne wane nga carte safinatul amaan respect bañ lay jox war ngaa xam ne jaayante ko jaayanteeg sëñ Tuubaa ko waral waaye du leneen bu doon leneen rek boo taxawee boo waxee ñu tontu la boo leen dóoree ñu fayu kon nag loolu lañ leen di yokk sant di leen ñaan ngeen gën a góorgóorlu ci jub tey jubal ndax kuy jubbanti nit waru laa gën a jub da ngaa war a jub ba tegu ci yoon tegu ci fexe lenn luñ la mën a joxane ba saay-saay du la joxañ baaraam nga moytu ko ndax façon bu ne danañ leen ci rëbb ngeen moytu lool kenn ku ci ne daal boo xasee nekk membre Safinatul Amaan am nga responsabilité nga góorgóorlu ba buñ def lenn luñ lay joxañe wala ñu naan la yaa fi waxoon lii barki démb wala yaa ko fi defoon te doon ko nëbb ta fekk faawu mu feeñ sëñ bi moo nanguwul lool ku jaayanteeg moom da ngay liggéey te yàlla tax mu fayee la fii faye la ëllëg yàlla na ci yàlla gàttandu wasalaamualeykum wa rahmatullah ci kaw ndigal rek ndax barab bi leen fi dajale mooy liggéeyal sëriñ bi ci sëriñ Tuubaa lépp lu muy liggéey da koo sàkkal jëwriñ jëwriñ ji nag ki ñu si ta yàlla tànnal ca mat ko sëkk nag mooy sëñ Cheikh Modou Lo Ngabou mii kon nag noo ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a rafet nuyoo bi nag ñu di ci jiital sëñ Cheikh Sidi Muxtaar xalif général de Mouride ni ko ñëpp ñaane ngir ab taxawaayam ak sagal gi li sagal lislaam yemale ko ci yoonu Mouride noo koy jox nuyoo boobu nuyu itam di nuyu sëñ Modou Lo ca di ko sant ngir daa am loo xam ne bii da koo taxawee ci dëkkub maamam bii. yàlla dogal ci coobareem mu boole nu ca ñamu tànn nu war a ànd ak moom liggéey bi ak gone yi nga xam ne xam nañ ne liggéey sa liggéey mënta ñàkk ndax sonn moom ku yàlla bind ku ne da laa bind ci coono yaar nga sonn ci lu am njëriñ wala nga sonn ci loo xam ne xamoo la la cay fekk ëllëg ñun ñi yàlla baaxe nag mun na koo ànd ak ñun ci liggéey bi. suñuy xol itam yàlla dimbali nu ba nooyal ko ba fu mu nu joxoñ nu nong faa jaar ba waral résultat bi am tey am sëñ Modou na nga xam ne gone yii nga xam ne ñoo ànd ak yow ci liggéey bi yàlla nonguloo na liggéey bi nooyal na seeni xol xam nañ itam liggéeyal sëñ Tuubaa la muy jëriñ ndax kenn ku ne ci ñoom ba muy tàmbali dugg ci liggéey bi am na fu mu toll woon am na fu mu newoon waaye fii nu toll tey ñoo lay soññi waaye dootu dootuñu leen soññi xanaa li ñuy sàkku kay nii nga xamee liggéey bi nii mu mel doomu aadama yëpp seere ko ñëpp xam ne lii fi génn tey yellawut ak dëkk bi ñëpp bàyyi xel nañ jàpp ne yellawut ak dëkk bi rek mu bañ a doy nañ jàpp ne dañ cee war a jàppalee Safinatul Amaan ba nii nga xam ne noonu la ñu koy sellale yàlla dogal nu man cee am ak yolomal yolomal gi nag ci doomu aadama yi rek mën a bàyyi ko ndax koo xam ne bii mënoo dindi lu tilim lafa fa sawet war nga ko mën a jottali safinul lamaan ndax moom kat buñ ca jotee la ca war ci ak dox daañu ko def la leen ci war ci jëf daanu ko def ndax yàlla dimbali na leen ba jumtuwaay yi nga xam ne bii wutal nga leen ko amaa sax doyut ngir wax dëgg yàlla mbooloo mi moo ëpp doole jumtuwaay yi te léeg-léegi nu dem ba war a jóg ay jafe-jafe fekk nu ca xam naa ni noo ngi gën a tàllal loxo ñëpp nag ndax dëkk bi lañuy ñuy liggéeyal ci nekk ñi ci biir ñi dëkkee dëkk bi war nañoo bàyyi xel nag fu ñu liggéeyal dëkk bi ku ne ñi dëkkee dëkk bi seen cër nga ci su ko defee nag ñun ñëpp ñu delloo ci sunu yitte ca xam liggéey bi ñun ñëpp ko bokk delluwaat xam ne kuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkkub sëñ Tuubaa ku ne sëñ Tuubaa daa dëkkoo dalaa nangoo dëkkoo war ngaa bàyyi xel kay liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkkub sëñ Tuubaa boobu ca di ko tànnal la nga xam ne moo yëlluwut ak dëkk ba di ko fa génnee ndax am na ñu ko fi indi ñoo xam ne njuumtee tax ak it ndam ñàkk xam rek am na ci ñoo koy wax dëgg yàlla sëñ bi euh, dañ leen di noppal lool ndax am na ci ñooñu boo leen gi waxtaanee ñoom rek sàllaaw la la nga xam ne moom lañ leen di tere di def nga bàyyi nga da leen di yomb waaye am na ci nag ñu dëgër bopp li waral jëflante bi nag ak nangum kër mi ak dëgër bopp la gis nañu fi ñoo xam dañoo jëlan seeni kër ci biir dëkk bi na la leer ne ku ca dugal kàddootam loo doon doon kilifa la tax ñu jël kër ga yow si sa bopp yaa ko waran defal sa bopp ci li kaw loo xam ne bi safinawaan négo ba ñu egg si bu kon nag bu ko safinawaan jëlee loo doon doon kilifa war ngaa jomba dugal sa kàddu ci biir loola ñuy sàkku nag ñun ñu jàppaleen ci loolu yi ba liggéey bi gën a yolom sant gi ni sant nag am na lu sëñ Modou wax léegi nun nun mii liggéey ci laay dellu si waat sëriñ Tuubaa ngeen xam ne toujours ma dee nga wax du yekk si ndab lu setut na ni ay yiw cay waxtaan cay diisoo ca kumpa di bañ a dox seen diggante ndax bari na erreur yoo xam ne mi ngi ci diggante nit ak nit kumpa geen fa doxalee ca jaru ko damaa bëgg ngeen xam ne sëñ Tuubaa du yekk ci ndab lu setut boole leen seen bopp su ngeen boole seen bopp yéen a ngi liggéeyal sëñ Tuubaa lu yombut sëñ Tuubaa mën na leen ca defal loo xam ne da ngeen jàpp ne jomb na leen ca fekk liggéey bee ko yeyoo ñu defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaw yokkaat tuuti ay kàddu rek ndax di jottali ak cant bu baax rek ci mboolem ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ni ko sëñ Bay waxee léegi eh, ndax liggéey bi farlu ak pas rek moo ci tax ak si fii ndax eh, yaakaar naa ne ku ko gis ku nekk xam ne boroomi Pastef ñoo taxaw ba lii mën a am tey eh, ñu ci seedeel dolli ay cant yitam suñu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Italie di sëriñ Naar Nger ak sëriñ Aliou Mboob Jes bu ñoom ñëpp taxaw ak seen i jumtukaay te di ci jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di yaatal yëgle bi foofee ci jumtukaay ya ñu yor ci réew ma ba am sax ay appareil yoo xam ne ñu ngi ñu koy indil yoo xam ne dana gën a yombal jokkoo bi ci biir Safinatul Amaan yooyu yëpp ñu ngi leen ci sant di seddal mbooleem taalibe yi nekk foofa itam ne leen liggéey boobu ñu leen joxoon sant leen ko ak aksil nañ ko ci safinatul amaan leeral nañ ñu taxawaay yëpp ñi ngi ñaan Serigne Touba fajal leen seeni i aajo euh, tàbbal leen ci biir liggéey bii ñuy def te faye leen lu kawe njort euh, di leen di jottali cantit ku mel ne ma sàmba Diop mi di sëriñ sëtub Serigne Massamba Diop Sam futtiku laxasaayu guddeeg bëccëg nekk ci biir liggéeyu safinatul amaan amul waxtu ci guddi ak bëccëg waxtu wu nekk bu ko liggéey bi soxlaa day taal otoom fu nekk buñ ko fa woo mu ànd fa dem fa dox fa loolu itam ñi ngi leen koy seedal ab seex la boo xam ne bii mi ngi ki dongaam yor léppam bu ko neexoon toog fa toog waaye xam na ne la maamam jaayante woon ba Serigne Touba defal ko lam ko defal a ah, moom itam loole bëgg na yéene ah, ginnaaw bu mu amee loola ba noppi mu ñaqal sëriñ bi moom itam ndax loolu xam na ne loolu du doy ndax eh, kenn ku nekk la sa way jur def ba ngay jariñu ca barke ba yow it boo góorgóorloo boo àggul fa mu àggoonit it da nga ca mën a amus lëf kon loolu ñi ngi koy seedeel mbooloo mi di sant nag mbooleem kuy membre Safinatul Amaan ak mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fii yore ay jumtukaay yoo xam ne dañuy leeral liggéey bi ñi ngi leen ciy sant bu baax euh, yëg nañu ñëpp ñi fi indi ay caméra télévision ak ñi fi indi ay rajo ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm ndax lëggéeyal sëñ Tuubaa moom noonu rek la nun am na ci loo xam ne soxlawuñ sax def ci publicité ndax li ñuy wax mooy lëggéeyal sëriñ bi sëriñ bi soxlawul publicité soxlawul propagande li am solo mooy lëggéeyam moom euh, day feeñ ba faw loo ciy def te positif rek tax loolu day duggandoo ci xol yi nit ñi ba tax na yaakaar naa safinatul amaan léegi waa adduna bi yëpp sax xam nañ ko ñi ko umpule woon it xam nañ ko léegi xam nañ it li leen tax jóg. ndax yaakaar naa ne bu leen leneen taxoon a jóg kon dana demee ne nen waaye dañoo bëggul nag lu jëm ci sëñ bi leneen di ko rax nun képp koo xam ne yor nga loo xam ne lii sax wóor na la ne sëriñ bi seexlu na ko nun soxlawuñ loola nga yet ñu ko lu mën a dugg ci jibay sëñ bi rek lañ soxla waaw loola moom moo mën a ànd ak suñ liggéey bii waaye lépp loo xam ne sëriñ bi seexlu woon na ko ci wàllu am am wala alal loola nun ku ko yorit na nga ñu jéggal ndax la mu dafa leer katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ilan nasaara abidil maa'i iwa tiini mu ne bind naa bi ma nekkee ci géej gi ne maa ngi waat ci yàlla ne sama loxo bii duma ko tàllal mukk jëme ko ci nasaraan bi ngir di sàkku ci moom lu ma am kon nag nañu xam ne nu itam war nañoo jomba tàllal suñu loxo nasaraan bi te nasaraan bi mooy ñi leen fi nekkal mooy ñi nga xam ne der yu ñuul la ñu yor te nasaraan bi jàngal leen yar leen may leen i soxna ñooña ñoog nasaraan bu xonq bi ñooyam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 sëriñ bi woo na la wuy sil yàlla moo ko defal moo am lu dul jeex te laa wuy si raw gaa ngi